الشكوى إلى الله كربتي rek mel na ni ki Touba nga ca lépp lu xew Touba diigaan nga ca bon sëriñ bi nee na teraanga yooyu gis na ko gërëm na xalifa bi yan na ko fi yàlla yàggal te wéral ko noonu itamit mu ngi gërëm bu baax a baax xaritam wëllëreem di Cheikh Ismaïla Diouf Nuurullah koo xam ne képp koo xam ne xam na sëriñ bi rek xam nga seen diggante moom itamit yónni ta fi délégation bu mag ka jiite délégation ba mooy Cheikh Aliou Konté kon sëriñ bi nee na gërëm na ko sant na ko bu baax yal na ko yàlla fay noonu itamit waa ahlu bayti rasul ñëw nañ fi sànq def si an seen ziar ñaanal dëkk bi ñaanal réew mi ka ci jiitu mooy Cheikh Taalibuya ibnu Cheikh Abdul ibnu cheikh taali buya ibnu cheikh na cheikh saadu abihi nafaana allahu bi barakatihim amin e, noonu itamit sérif hadaraame bahayda haydara moom itamit jaar na fi ñaan na fi yal na ko yàlla fay noonu tamit sérif siidi buya aydara moom itamit ñëw na fi ñaan na fi yal na ko yàlla fay e, ba tey si délégation yi préfet département bu Mbacké moom tamit euh, ñëw na fi wala yónnee na fi ci njiital Ahmadou Sow moom moo ko fi teewal sëriñ bi nee na mu ngi lay tatagal di la bismillah di kontaan lool sa teewaay di ñaan yàlla yal na yàlla fay barki alquran noonu itamit tamit galoba muy maire bu Mbacké Gallo mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ndaxte si kër gi la bokk euh, euh, maanaam gerbaat la ci sëriñ bi xaritam la wollereem la yàgg fi ñëw lool di participer lépp loo xam ne diigaan soxna la ko rek seete nañ galo ba dugal na ci loxoom kon sëriñ bi nee na gërëm na la sant na la yal na yàlla fay la noonu tamit sëriñ Modou Baara Dolli Mbàkke député moom it ñëw na fi sëriñ bi nee na gërëm na ko sant na ko yal na yàlla fay ko sëriñ Coro Mbàkke député moom tamit ñëw na fi sëriñ bi nee na gërëm na ko sant na ko gis na taxawaayam noonu tamit sëriñ Modou Maye loo xalifa sëriñ Hamzatu Lo bu Ngaabu moomu tamit ñëw na fi xam ngeen ne dëkkandoo sëriñ bi la wax dëgg yàlla dëkkandoo bu rafet lañ fi dëkk koy koy tamit ñëw na fi sëriñ bi nee na gërëm na ko sant na ko yal na yàlla fay ko Moustapha Cissé Lo di xaritu sëriñ bi moom i tamit yónnee na fi délégation sëriñ bi nee na gërëm na ko gërëm na délégation bi yal na yàlla fay leen barki alquran monsieur Moussa Sakho ancien ministre moom itamit ñëw na fi ànd ak délégation bu mag mun mbokk moom itamit ci doomu kër gi sëriñ bi nee na gërëm na ko sant na ko ba si kanamu yàlla yal na ko yàlla fay noonu tamit Demba Diouf maire Dalangaabu moom it ñëw na fi Alaaji Ba maire Kohil moom it ñëw na fi Alaaji Ñing maire Touba Fall moom ñëw na fi Serigne Jili mbakke bu saam moom ñëw na fi Serigne Jili Mbacke bu saam moomit ñëw na fi sëriñ bi nee na gërëm na ko sant na ko yal na yalla fay ko sous préfet bu barke yi Ibrahima soow moom ñëw na fi sëriñ bi nee na gis na taxawaayam yal na yàlla fay ko madame mbakke médecin chef bu Mbacke moom ñëw na fi waaye Serigne bi mu ngi beral cant ak ngermande commandant brigade bu Mbacké muy monsieur Sall commandant Sall wax dëgg yàlla nee na gërëm na ko bu baax sant na ko ndaxte yaakaar naa yàggu fi ñëw waaye taxawaay bi rafet na euh, sécurité bi doy na kon sëriñ bi nee na gërëm na ko ak moom ñi mu àndal yëpp yal na yàlla fay leen. noonu tamit waa sapeur pompier ñoom itamit ñëw nañ sëriñ bi nee na gërëm na leen sant na leen yal na yàlla fay leen. noonu tamit waa Croix Rouge ñooñu tamit ñëw nañ fi sëriñ bi nee na gis na leen gërëm na leen sant na leen yal na yàlla fay leen. noonu tamit waa senelek te Samba Sow jiite leen sëriñ bi nee na gis na leen sant na leen gërëm na leen ba ci kanamu yàlla noonu tamit Thierno Diagne maire bu Sinja sëriñ bi nee na gërëm na la sant na la yal na yàlla fay la noonu tamit suñu mbok suñu xarit suñu wëllëre di xaritu sëriñ bi di wëllëreem. di wëlëre Seeg Ibrahima Sow muy alaaji Ousmane Guèye maire bu Saly sëriñ bi nee na gërëm na la sant na la ba kanamu yàlla dëgg dëgg yàlla ah, war nañ laa beral cant ndaxte at bu ne yaakaar naa fi ngay gàmmoo ji diigaan te li nga war a dem bari na lool sëriñ bi na la ko sànq waaye ala kulli xaalin boo ñëwee diigaan ñëw nga Sénégal yëpp kon yal na yàlla fay la sëriñ bi nee na mu ngi sant waa média yëpp euh, beral ngërmande ak cant mooy bokki taalibe yi ji yi ndaxte lii lépp ñooma depuis sa Seex Mamadu Ali ñoo taxawoon ki tool yi taxaw si addiya yi taxaw ci kër gi lépp loo xam ne Seex Mamadu Ali soxla woon na ko taalibe yi musuñ denc ci taxaw am na benn taalibeem bu tuddoon Cheikh Jibril Mbaam yaakaar na ay bokkam ñu ngi fi taalibe Cheikh bi woon dafa am benn jamono mu yore woon ay nag mu ne moom warul am Cheikh Mamadou Ali nekk fi moo taxoon nag yépp def ko womatoon indil ko Cheikh Mamadou Ali mu ne ko mënoo mënumaa nekk fii ci àddina nga nekk ci àddina ñu may tuddee am am te fi man li ma am ak si suma jëmm ji yëpp yow yaa ko moom mu jël nag yépp ak gétt gi yëpp joxe ko waaw Cheikh Madou Ali comme waliyu yàlla la mu ne ko nangul naa la sa yéene nangul naa la sa jëf waaye ndag yi nanga ko delloo soo ci amee soxla bu ma xaar su ma si amee soxla ma yónnee ci yow xam nga lii lu rëy la suñ ko toppoon dañ ci lim ba fajar duñ ko jeexal ci ay taalibe yu dégg woon àndoon ak Cheikh Mamadou Ali ci seen doole ak ci seeni i bakkan ba ñu wujj seen i borom Cheikh Saad bu diigaani tamit noonu bi xalifa bi toog si ngeen liggéey bi ñu liggéey si dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla taalibe yi sëriñ bi nee na jàmbaar ngeen gërëm na leen ba si kanamu yàlla daayira yi wax dëgg yàlla def nañ mobilisation yu rafet ñëw si bés bi rafetal ko taaral ko kon li ñuy wax rek ilal amaam ilal amaam ilal amaam wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu kilifa bi toog yëpp bokk julli ak bokk taalibe yi. di ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu baay sunu nijaay sunu lépp ca noonu ak njabootu Cheikh Sadibou bi toog fii yëpp. di bu baax a baax Thierno Lamine Sow ak Thierno Ibrahima maa ngi nuyu tamit bu baax préfet Mbacké ak maire département yi fi teew yëpp di ci gisal le maire de Dalangam sunu xarit sunu wëlëre sunu léppit Demba Diouf di rafetlu bu baax a baax taxawaayam ci département bi waaye tamit taxawaayam ci commune bi ndax ku ne jéego yi nga xamante ne def na ko jëm ci dëkk bi te loolu ñun ñëpp la ko bu baax a baax it teewaayu meeru Touba Fall El Hadj Dink ak teewaayu meeru Kayel sunu papa El Hadj di sant bu baax également sunu xarit Ousmane Gueye di meeru Saly jàpp naa ne ak mu su ko yàlla man loo dina fi teew kon maa ngi ziar yi fi teew ñëpp di wax ne kàddu yi kàddu yi cant doon ak kàddu sàkku ñaan sant yàlla bu baax a baax bi ñu baaxee ñu fekke waat ko ren monsieur le maire wax na ko ñu bari ci ñun yàlla baaxe nañuy fekk waat ko ren fii nag dañ fee ñëw ñëwee dañ fee ñëw yàgg fee ñëw bokk fi ñëwu fi ñëween bu ne ñëw nañ fi nekk tout tànk ànd ak suñuy waajur di gaa di gàmmu si ñëw nañ nekk élève di gàmmu si et nekk étudiant di gàmmu si nekk directeur nekk chef de service nekk directeur général nekk ministre di gàmmu si nekk maire Mbàkke di gàmmu si kon su digganteeg diigaan ak su digganteeg bis bii. le maire dala gàmm Demba Diouf di ko encouragé di ko ñaaxit pour mu gën a geestu suñu dëkk bi naam def na fi lu am solo nag loo xam ne jàpp naa ne man benn maire ba su ko fee def waaye loo fi def doyut te it jàpp naa lépp loo am fii ci am naal ñun dañ ko ànd ak yow liggéey ko ak yow incha allah ba nga ba mu nekk njariñu askan wi ba waa Diegane gën sant bu baax a baax ci wàllu développement waaye tamit ci wàllu gis seen bopp ci dina réew mi doxe jërë ngeen jëf wasalaam auzu billahi min aseytaan rajim suma salaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu taala alayhi wa ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñu ngi nuyu mbooloo mi kenn ku nekk ci turam ak euh, santam nuyoo boobu nag dañ koy jël teg ci loxo xalifa bi mu joxal ñu ko kilifa diine yi fi nekk yépp kenn ku nekk ci turam ak santam di jëlaat beneen nuyoo bi jox ko suñu frère jëf jox ko suñu collègue muy monsieur le mu joxal ñu ko kilifa yi fi nekk yépp mais di biral nuyu aussi maire bi nga xam ne diigaan foofu la nekk di ko ñaanal yal na ko yàlla jàppale yàlla taxawu ko euh, di ñaan yàlla pal gi jik dëkk bi jik ko te am naa yaakaar ne euh, yàgg naa di fi ñëw mais gis naa ko ni ko ñëpp waxee ay changement ci biir dëkk bi change su maire bi la mais change su xalifa bi la itam ndax su yàlla mayee say waajur nekk fi ba yàlla dogal ñu jóge fi nga tooge seen place am lu ñuy yéene woon doon ko mébét yàlla amale ko ci sa kay ah, loolu dafay doy sant yàlla ndax xam naa ne tali bi jóge ci route nationale bi ñëw ba ci biir dëkk bi bu ñuy laajte kañ kañ la fi am dañuy naan jamono yi nga xam ne Cheikh Mouhamed ci la nekkee woon xalif généralu diigaan loolu nag yal na yàgg te nga yàgg ko fekkee mais yàlla jàppale ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo am ay moyens am ay possibilité pour def ko te loolu muy jaar si loxo maire bi ak équipe bi mu àndal di ko ñaanal bu baax yal na ko yàlla taxaw di nuyu préfet bi di nuyu commandant brigade bi mais di nuyu journaliste yi mais di nuyu autorité yëpp mais di wax cheikh bi rek euh, man fii su ma fi ñëwee sama casquette mooy taalibe mooy ñëw fekk si sëriñam sàkku si ñaan mais fekk si xaritam aussi soppeem di Cheikh Ibrahima ku ne xam ne ne bés yu mel nii dafay xaw xat ñu nekk di waajal gàmmu Njaasaan mais Cheikh Ibrahima mii maa ngi lay seedeel ne sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko beneen bi ci des tamit sama dëkk muy Saly dafa bari ci say taalibe ñoo xam ne foofu la ñu dëkkee te su gàmmu gi jotee ñoom ñëpp dañuy buubu ñëw kon nag sama ñëw ñett waral na ko mooy ñëw pour siyaare la sàkku sa ñaan mais ñëw pour gis sama xarit sama soppe ak njabootam mais gis sama njaboot gi nga xam ne aussi ñoo jege Saly ñëw fi muy taalibe yu góor yi ak yu taalibe yu jigéen yi ak ñi jóge département de Mbour ñëw fi yëpp mun naa wax ne mun naa fi représenté maire département bi yëpp comme dafa xaw a guddi te wax ji moom jàpp naa ne ki ko jëkk a wax muy monsieur le maire mooy moo ko moom xëy ne ñun dañ siy wax rek ndax cofeel bu ngeen am si ñun mais ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di feddaliwaat suñu coloré ak le ministre Kaloba di ko ñaanal aussi di rafetlu geste bi parce que dafay bari ci responsabilité yi responsabilité yi c'est pas éternel da nga koy yore tey bu subaa yàlla summi ko solal ko keneen waaye bu mu tax lii autorité war a sàkku mooy boo yoree fonction di si di dem ak ñëw fexeel ba defar defar boo xam ne dana la permettre la nga yoroon su jógee ci say loxo fa nga daan dem nga bañ fa am benn frontière te sa ñëw bi wane na ko donc ñu ngi lay encouragé di la félicité di la wax ne loolu mbiru suñu borom la yàlla mooy fal si saay bu ko soobee mooy foll si saay bu ko soobee mais li am solo mooy li nga def nii mooy fa nga daan dem ci waxtu wi jotee nga xam leen ne bi nga nekk wax nga ko léegi bi nga nekk gul maire nekk goo amoo benn responsabilité yaa ngi doon ñëw si dëkk bi yàlla jox la ay responsabilité ngay ñëw si dëkk bi yàlla xañ la responsabilité ngay ñëw si dëkk bi ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla jëlaat teranga teg ko si sa loxo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñëw na képp koo xamante ni daal Senelec moom kenn kenn waxul seen wax macha allah dañu yebal fii Samb mu ànd ak lu mu toll ñaar fukki nit. ñu saytu dëkk bi yëpp changé ay làmp li nga xamante ni moom la ñu waroon yokk ci ay poto te nga sàkku woon ko pour kër gi ak njaboot gi na nga jàppane yooyu itam su fekkee demande bi téeméer la woon juróom-ñeent fukk yi ak juróom lépp mote na lii laa amoon lu may wax préfet maa ngi lay nuyu ci kanamu sëriñ bi di sant ndax sa yar ndax sa tëggin sa sama do joxe cër yàlla nag moo yore cër ci barki guddi gi yal na la yàlla jox cër ci daraja rasulilah monsieur le daan na ko def xalifa dolli na ko dëkk bi dañ doon jàpp rek quelque kër pompe leen waaye keroog bii ñu nga xamante ni préfet saisir na ko mu yónnee ñu bokk ci CDD bi def na Cheikh Ngom mi mu doon yónni soo demee nga ne ko lépp lu digaan laajte rek jàppal ne daañ ko def kon amul benn ngan leen ji macha allah bu fekkee téeméeri kër a fi nekk juróom-ñeent fukk yëg juróom yëpp pompe nañu leen ndox mi macha allah rabbi moom dafa am problème mais xam naa ne après gàmmu gi préfet ñu waxtaan ci ak monsieur le maire ak autorité administrative bi ci ndigalu sëriñ bi ndax loolu moom jàngara bu yàgg la mu duna sax nekk dëkkandoo waaye nag ñu ngi réclamer rek di ñaanaat ci ndigalu sëriñ bi ñu gën ñu cee jàppale ndax dëkk bi am ndox bii nga xam ne moom la yellool ndax dëkk bi bari na nit bariwaay boo xamante ni kenn mënu koo rootil kenn mën koo jëndil ndox il faut que ni mu am forage bi mu war a am wala itam li fi nekk di dox ñëpp mun cee am asalaamaaleykum wa wa barakaatu ñu jox monsieur le président rahmaani rahim ginnaaw dina sant yàlla ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew di jiitoo ci nuyu bi eh, suñu xalif eh, xalifu diiwaan bu ma ko nuyu ziare ko ziare naa tamit eh, waa njabootu diiwaan yëpp waaye ziare aussi taalibe yi fi teew di nuyu aussi autorité yi fi teew di ci nuyu rek délégation bi nga xam ne ànd nañ ak ñoom ñun ñu ci ràññee l'adjoint au sous-préfet de Ndar ñu ci aussi chef service yu bëri waaye aussi fekk fi aussi ay euh, ay maire ba ñu waxee néew yëpp waaye tamit di ko teg ci loxo El Hadj Ka maire bu Kayoor nga xam ne moom moo jiite mairie département di wax rek ci délégation bi ñu mën ca ràññee aussi commandant gendarmerie bu Mbàkke Sall nga xam ne ni biñ ko fi indee yàggul ndax bi ñuy def Sall doo bi commandant Sall moo fi nekkoon waaye comme état moom commandant Sall moom moo fi teew ci délégation bi ànd nañ aussi ak chef de service urbanisme waaye tamit chef de service action sociale ak ki nga xam ne moom moo fi représenté hydraulique bu Touba muy Dia fekk fi nag comme ni ma ko waxee sànq ay maire lu mu ne élage avec lu mu ne waaye tamit fekk nañ fi le sous-préfet de parquet ji di ko nuyu bu baax monsieur Ibrahima Sow waaye tamit ñu fekk fi eh, kilifa diine yi xam ne ñoo ngi ci bu baax ñu mayee ñu fekk bis nii ndax eh, yàgg nañu dégg gaawu diwaan boobu la gën a nekk ay yu bëri waaye yàlla dogal na tey ñu fekkee ko loolu nag dañ siy sant yàlla bu baax ñu xam aussi su bis mu bokk ci événement religieux yu am yu gën a am solo ci biir département bu Mbacké moo tax bu ñu jotee lettre bi euh, monsieur le préfet Khadim Anne ci la ñu ñu ñu organiser benn CDD ngir waajal bis te comme ni ko porte parole waxee sànq ma koy nuyu bu baax di rafetlu aussi liggéeyam euh, joxoon nañu ndigal chef service yi ñu taxaw ci taxawaay bu am solo kon nag bu ñu ñëwee tey dégg naa ci engagement bu ñu matalal lépp ci ëpp matalal nañ ko dañ sant yàlla bu a baax a baax. Cheikh Mouhamed Mal Ayni nee na mu ngi yëkkati kàddu nuyoo muy asalaam jàmm rahma yërmande ak barke yal na ko yàlla wàcc ci xeetu Seydina Mouhamed mais yal na ko yàlla wàcc ci képp koo xam ne ronu nga tànt bi. muy yëkkati kàddu. nuyoo di ko sant kilifa diine yi nekk ci biir réew mi yëpp. mu jiital ci nag waa kër sëriñam di njabootu Cheikh na Cheikh Sadbou ak surafa yëpp mu ngi jël ziar bi gën a sell gën a tedd di ko teg ci seen loxo di leen ziar. ilal muy nuyu magam di xaritam di soppem di cheikh mouhamadul muntaka ibnu cheikh mouhamadul bachir ibnu cheikh mouhamadul moustapha ibnu maam cheikh ahmad bamba khadim rasoul mu koy nuyu di ko sant nuyu si hel mel muy nuyu xaritam di soppem Cheikh Ismaïla Diouf Nourullahi bu Dar Salam Kamadu Kër Madiop muy nu le préfet de Mbacké su Cheikh Khadim Anne ci taxawaay bu rafet bi mu taxaw ci réussite gàmmu Digaan enen calmina omo gandanɗano kam woni ministre gala ba mo gandanɗano ko ɓiɗɗo men ko baaɗo men ko ɗoji e galle he muy nuyu monsieur le monsieur le maire de Mbacké El Hadji Gallo doom la jarbaat la mbokk la wallayi ko ko ɗum goonga ari ɗo homo jannga école si a woɗɗoy ari ɗo homo woni euh, mu wax dëgg la moom monsieur le maire jaar na fi ci cadre bu ne ñëw na fi ci cadre élève jaar fi nekk étudiant jaar fi nekk un fonctionnaire de l'état jaar fi nekk directeur jaar fi nekk directeur jaar fi nekk ministre jaar fi nekk maire bu Mbàkke waaye mun kam woni gi am na El Hadji Mamadou Ba xaritam la mais itam moroomam la te itam soppeem la suñu yaay ndey moom itamit jarbaatam la kon yow Gallo xalifa bi nee fii nga bokk nee day yëkkati kàddu cant rek di la ko sant abadan te du noppi itam di la sant ndax gërëm bu xamante ni yaa ko liggéey sa diggante ak moom mais yaa ko liggéey diggante ak diigaan ak xeet bi yëpp kon nañ nga jàpp ne njabootu Cheikh Modou Ali ak lislaam bi yëpp sant nañ la gërëm nañ nee na du dugg Dakar mukk te duggul sa kër nee na bugg yàlla